la loi d'amnistie ça plombe un peu mm -hmm. ça parce que lii dafa bees ba noppi dafa massif mhm. ba noppi dafa émane de personnes identifiées xam nga ay cinquante trente pick-up yu jógee siège benn parti oto yu weex tàll rang mhm. tasuñu sax rang ñëpp gis leen ni di leen filmer ñu xam fi ñu jóge bi ñu paree ñu xam fan lañ leen denc waaw léegi loolu loolu loolu vraiment Euh, am na ñoo xam ni pare pour bàyyi ko ñu. Mhm. plus maintenant donc jar ñu ñëwaat ci. jar nañu ñëwaat ci si euh, euh, autant que faire se su fekkee ni mën na nekk daal. Mhm. loolu mooy gën. mën nañ ci nag bañ a wut ay condamnation pénale forcément. Mhm. en Afrique du Sud ils ont fait la commission paix et réconciliation. paix et réconciliation li li koy jiitu c'est la vérité. ñu xam le les véritables forces spéciales ñan la. les véritable nervis yi ñan la. ñan ñoo leen joxoon arme ñan la mais léegi y a un moyen de le savoir à rebours à rebours parce que c'est pas par hasard que ñu yëkkati dossier quarante cinq milliards trois cent d'armement yi bi ñu mm-hmm. euh, kii woon euh, ministère de l'environnement hein euh, le ministre Daoud Abdoulaye Daouda Diallo avait signé une fausse facture qui n'avait d'autre montant que le total général mm-hmm. quarante cinq millions trois quarante cinq milliards trois cent millions léegi le ministre des finances naka la mën a signer un tel document il s'engage mm -hmm. et Daouda Diallo n'est pas n'importe qui ah. il est à la tête d'une institution mm -hmm. donc c'est un président d'institution maintenant il a donné l'ordre au trésorier général pour mu fay cinq traites avalisées de milliards millions à petit boubé qui est recherché même le trésorier général mais dañ ko war a woo. Mhm, pour xam comment ça exactement. corrélativement si l'on sait que le colonel Adama Gaye qui était la présidente je ne sais pas s'il y est toujours avait déchargé le certificat de destination l'attestation de destination finale de millions de munitions. Mhm. yoo xam ni document yëpp exposé nañ leen. on se dit mais tiens présidence lan lay doxe doxee doxee munitions maintenant s'il y a une affaire nouvelle. on ne saurait l'inclure dans le champ d'application de la loi d'amnistie hmm. parce que tey jii. bu fekkee ni lu bees la où sont les armes fu mu nekk nii ñu koy lijjanti. Hmm, hmm. ak yan armes la c'est pas les quarante cinq milliards là. c'est les armes. on a fait quoi. a fait quoi le le le le, le colonel Adama Gueye il a déchargé quoi où sont ses munitions. il va nous le dire.